des poissons daanaka ñett milliards ci dollars la réew yi ëmb CEDEAO di ñàkk ngir soppi li ni mel nag waa CEDEAO daa di boole doole ak Union européenne ñu daal di jëmmal ab projet ñu duppee ko COPAS juróomi at nag ñuy daal di ànd ngir aar lépp lu soqeekoo ci géej mu mel ni nag lañ ci yaakaaroon am nañ ko. mu di nguur ñi wala euh, li nga xamante ne mooy njiitu réew yi wala sax ki nga xamante ne moo di président bu CEDEAO ñoom ñëpp ñu ngi def seen euh, kéemtalaay kattan pour ñu maanaam ñu wàññi wala sax ñu éliminer li nga xamante ne noonu la ñuy nappee sunu réew ñi nga xamante ne teguñu ko ci benn yoon. au niveau de la CEDEAO. waxtaanu politique bi lu am solo la te CEDEAO liggéey na ci bu baax a baax loolu tax na ba nga xamante ni suñu mébét antu na. ñu daal di koy awale ci jëfandiku ay jumtukaay yu mucc ayib ñu daal di yokk doole itam ak xam-xam ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum napp mu mel ni nag CEDEAO leneen la ci bëgg a yokk. te jii nag euh, am nañu ay euh, jumtukaay day tax li nga xamante ne moo di suñu napp ci biir CEDEAO jëm ca kanam te loolu sax ñi nga xamante ne ñoo du chef d'État yi ñoom ñoo ko maanaam teg te loolu tax ñu gën a bu baax a baax li nga xamante ne moo jëm ci secteur pêche. on est vraiment dans vraiment ñu ngi ci yoon bu nga xamante ni suñu liggéey tax na ba ñu aar euh, ressources yi bu baax a baax soxol wàllu koom soxal tamit ay dëkk yu wute yu bëre dëkk yooyu nekk ci sous-région bi jëm ci wàllu développement. Euh, et de leur prospérité. ñaareelu phase bi ñoo ngi koy xaarandi fii ak as